Euh, euh, recevoir ko woon accepté wu ko woon ndaxte rek dañoo jàpp ne am na loi boo xam ne mu ngi suñu code pénal boo xam ne rek euh, dafay daan ñi nga xam ne ñooy def relation contre nature yéen nag yéen ngi continuer bu baax si seen xeex boobu mais ki di président de la république nga xam ne kenn dégg ko woon ba tey si bile débat après défaite Benno Bokk Yaakaar bi voilà si les grandes villes du Sénégal gis neen ko mu recevoir ñi nga xam ne mooy imam yeeg ulema yi di mel comme remettre en question xeex bi nga xam ne yéen a koy def euh, si wàllum li nga xam ne mooy borom ñaari tum bu ñu sukkandikoo rek si euh, kàddu yi nga xam ne président de la république Macky Sall yëkkati na ko nee ne lii nga xam ne mooy euh, mbirum góor jigéen du débat d'actualité au Sénégal et tamit dafa mel ni comme da nga ko jël rek di koy politiquer. waaw c'est-à-dire moom xam nga maa ngi koy expliquer loolu si plateau ma ni. Mhm. benn plateau ma ni cest ñoom ñoom ñoo def xam nga olof day mu ne jëf moom la ñuy nattee ay wax maanaam jëf mooy nattukaayu wax mhm. Macky Sall ñun du parole moom mooy ñu mooy ëpp doole loi fii Sénégal ñun on parle ay loi ay texte la ñuy wax mhm. ñun dañuy dugal proposition de loi jébal leen ko ñoom pour ñu dugal ko pour criminaliser homosexualité mhm. te boo gisee ñu def loolu tëbuñu rek def ko dafa am lu xew dañu gis ni ñoom dañu dem EPU ndaw gouvernement bi représenté fa Sénégal ne Sénégal amul problème ak les homosexuels Sénégal criminalisé wul homosexualité mais acte contre nature la Sénégal di di criminalisé te loolu ñoom jëlee wuñ ko comme homosexualité ñoom ñoo ko wax de mhm. mais attentat à la pudeur lañ ko jàppee mhm. kon le Sénégal n'a pas de problème avec les homosexuels ñoom loolu la ñu wax fële ci EPI mooy programme EPI yi nga xamante ni seen agenda la ñu di ko déroulé pour bokk ci lii dooleel góor jigéen président de la république sax yëkkati woon na kaddu yu ni euh, ah. si euh, bañ ko euh, invité rek foofu si juma contre France 24. Ah, wala itélé itélé c'était à itélé muy xam ne mm. ni li nga xam ne mooy gox jigéen mi ils sont pas pourchassés au Sénégal aussi. waaw c'est-à-dire problème loolu mooy problème bi ñun en réalité. Mm-hmm. léegi ñun bi ñuy jogee xam nga Macky Sall sortie bi mu def en fait defu ko pour ñun xam na ni ñun xam nañ moom xam na moom xam na bu baax programme EPE. E. Mm-hmm. xam na ko bu baax a baax a baax a baax moom dem na si toit bi wax leen li leen wax ñun gis nañ ko. mais li ñi muy bluff mooy ñi nga xam ni peut-être ñoom ils sont pas très informés si comme kilifa yi kilifa diine yi suñu yenn yaay ñi nga xam ne au fait ñoo am de valeur parce que boo seetee suñu génération ñu ci bari na ma yàlla jégal dafa am yu bari yoo xam ne ñoom ils sont pas tolérants mm-hmm. ndax système bi système d'éducation bi école française dañuy comprendre di toléré yoo xamante ni amaana diine du ko sib mais ngóor jigéen état du Sénégal Sénégal ci boppam réew mi ci boppam Sénégal amul problème ak góor jigéen criminaliser wala homosexualité mm-hmm. acte danañu commis publiquement te loolu attentat à la pudeur lañ ko wékk foofu lañ ko dugal ñoom Macky fu ñu taxaw bay invité ay imam xam nga wax naa ko démb maa ngi koy si benn plateau télé ma imam dafa am lu muy représenté imam dafa bu mu yor imam mooy remplacé Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf imam mooy xaala laaw xaala rasul imam institution la ci diine l'islam imam alxuraan mooy sa constitution imam yow yaay yaay jiitu mm-hmm. yow normalement Macky Sall bu fekkee ni Macky comme son nom di bu fekkee jullit la comme ni ñu koy waxee moom dafa war a déglu imaam yi laaj leen lan la lislaam wax ci góor jigéen mais pas moom mu ñëw ni mu percevoir ni mu comme lislaam du ni ñu ko xalaatee ni ko yàlla bëggee la mm-hmm. pas mu jël ay imaam woo leen ñu ñëw toog moom mu war a wax moom naka la gisee góor jigéen moom imaam yi ñoom ñoo ko gën a jàng imam Moussa Gueye moo tax may wax Omar Dieng moom taxul may wax <laughs> Omar Dieng moom taxul nga xam ni nit ko xam-xam-xamam naw ko mm-hmm, mm-hmm. macha allah kooku kenn amul sikki sàkk ci xam-xamam mm-hmm. mais xëy na yàlla mooy nattu nit parce que damay xool imam Moussa Gueye si ku nekk da nga ñaan mujj bu parce que Pape li mu liggéeyal yàlla ak li mu liggéey ci ci ci ci xam-xam ci waaraate ak fi mu mujj di campagne koo xam dafa dem taxaw ni je suis Charlie nga koy campagnal Macky Sall woo leen ci palais bi ñoom waxuñu ko parce que ay texte la Macky Sall ay texte ñoo ko teg fi mu toog ñu nekk constitution au Sénégal la ay tax lépp lu muy def da ko war a wékk ci texte yi respecté ko donte ko respecté ko mais imam tamit ay texte ñoo ko def imam mm-hmm. moom ay texte yu mu tënku xaaral ma wax la dafa am loo xam ne il faut Sénégal yi xam ko gis nga imam gis nga imam imam yi bi ñu demee Macky di wax ak ñoom lan lañ ko ne leen ñii wax waxu góor bëgg ñu def ko comme dafa rey

te ñoom xam nañu seeni nawle ñii ci dëkk bi nekk ay catholique te duñ def loolu mukk dem ci Macky catholique laa nekk ay prêtre wala ñu nekk ay ay kii te duñ dem mukk ci Macky te am nañ mbooloo kon ñoom am nañ soxla comme ñoom ñu dem toog si kanamu Macky Sall duñ dem toog ñoom ñu toog loolu yëpp xooluñu daaj yoon Macky wax leen dajji principe bu ba pare jox leen yoon jox leen xaalis pour ñu ñoom ñu wër campagne ñu koy garanti ne ko ñoom nañ campagne pour dajji principe bu l'islam ay imam est-ce que xool Sénégal yi ñu a baax affaire boobu en fait fu mu Macky Sall lu tax woowul ànd sàmm jikko yi ànd jikko yi ñoon imaam ulama ulama yoo xam nga Omar Dieng nga xamante ni moom barki démb rek bi mu génnee ci kaso bi fii dafa dem taxaw ne ay góor jigéen ñoo nangu jàkk Rëbës ñu vérifié naka du ay góor jigéen dafa ñëw bi mu duggee kaso ñoo ne ko dootoo jiite fii te doon dóor jàkka magasin yi nekk si si grande mosquée bi yëpp la doon dóor foofu gars yi jàpp ko ci tëj ko si kaso <coughs> mais Abdou euh, imam yooyu est-ce que mun na leen mun na leen jox aussi euh, bénéfice du doute bu ñu gisee ne carrément kii di président de la république Macky Sall ak it gouvernement wala sa constitution bu réewu Sénégal dafa rek euh, teg ay daan ñi nga xam ne ñooy def acte nature mhm. donc sur ce coup bu ñu leen ko expliquer noonu est-ce que ñoom tamit du ñu jël parti pris si gouvernement bu Sénégal par rapport au lieu de condamner ces imams est-ce que nekku ne carrément xeex bi dafa war a dem par rapport ak kii di président Macky Sall wala sax ñi nga xam ne ñooy euh, euh, député yi. ñi demoon peut-être aussi de l'ENA leur est aussi benn instant. Massa ñi demoon si si si Macky Sall ay naafeq la. ah parce que ñoom dañoo signé pétition wu ànd euh, sàmm. ah dañ ils l'ont signé. mi ngi fi mi ngi ne fànn ci internet dañ ko signé. ok dañ ko signé nii signé moom seen dirigeant bi daf ko signé pétition bi. <laughs> pour criminalisation homosexualité benn ay naafeq la. ndax naafeq mooy kan mooy koo xamante ne day wax fii wax fee naafeq mooy koo xam ne dëgguwul ci li muy woote déggul mu la wax na Macky moom moo la gën a xam moom xam na ni l'islam dafa criminaliser homosexualité xam na ko ñoom ñoom ñi imam yi moom moom imam bi benn imam laa fa gis moo fa tane doyatuma man cest moom xam na suñu saagee xam-xam bi mu am moom xam na ni l'islam yoon ci Yàlla Muhammad dafa criminaliser homosexualité la ci lan interdire l'homosexualité au, Sénégal, au, Sénégal certes mais aussi euh, Karim bu ñu xoolee aussi par rapport ak laïcité bi nga xam ne ñu bëgg ko ñu bañ ko ñun si loolu si loolu la ñuy tënk nekkoon benn état islamique est-ce que aussi euh, criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité dina fi nekk lu yomb au Sénégal léegi nekkuñu état islamique lu mu yow waa imam moom moo ko yóbbu ci cadre imam de mhm. fii bëri na ñoo xam du ñu ay imam bëri na ay constitutionnaliste bëri na ay ñeneen na ñeneen lu tax mu waa imam est-ce que nekkul aussi pour remettre en question yéen seen légitimité ñi yéen nga xam ne yéenay ànd sàmm jikko yi nga xam ne yéen a porté boobu les combats. Ndiab dafa am parce que dégg nga si ay kàddoom sax nee nañ dañ koo yëkkati si jamono campagne électorale. mais loolu c'est faux xool ba pare xam nga dama dégg mel Moussa Sall moo wax bu pertinent. Mhm. c'est-à-dire déjà Macky Sall kan la moo tax moom bu élection jegesee mu dem di inauguré Ila Touba di inauguré mhm. dem di inauguré ay terre lu tax. Mhm.

c'est de bonne guerre bu dee politiciens utiliser nañ mooy moom moo ko may mais acte contre nature Sénégal ñoom dañoo wax carrément ne acte contre nature condamné wul homosexualité Macky Sall nee na nous avons des homosexuels chez nous journalistes yi laaj ko est-ce que les mu ne ko xool ils sont liberté boobu mu jiiñ ne mu wax ne homosexuels yi am nañ ko liberté boobu moo tax xale jigéen di jaay seen bopp ci biti police di leen jàpp ñaan ko ñu wan leen seen carte liberté boobu moo tax ñuy def ay bar clando yoo xamante ni ku ku neex la jaay sàngara amal 10 ans 12 ans bu ñu jaay la sàngara liberté boobu moo tax tey mooy gis c'est-à-dire pour wax la ni pour wax sénégalais ñu comprendre ni Macky Sall en réalité ñi mu woo foofu du ñu ay imam parce que imam mooy ku taxawal sidna wa salaa sallam te na ko na ko sénégalais yëpp seede sénégal bu fekkoon dafa criminaliser homosexualité kon coole du wékku ci waxu Macky Sall ay kàddoom ñun loi lañ wax ay texte koo xam ne saa boo waxee say wax dañ man waxi Macky Sall du ma ci dóor samay doom te bu ma ko xamee ba léegi lu mu wax du ko def du moom moo daan non man wax naa ko sama kàddu tànk maa fi tànk maa ngi fi yow fii ay ñun ci réew lañ nekk wala ci royaume yow buur bi loo wax rek la du affaire buur affaire texte la moo ñu boole dañuy dem ñu dañoo bëgg criminaliser homosexualité ba def ko mu nekk texte loi bu intangible bu kenn dul laal ñu dul ko assemblée nationale mais du loi boo xam yéegul sax plénière. mais Karim loolu mooy euh, démocratie. Karim yi fi euh, borom ñaari euh, tur yi moom yaakaar naa ne képp ku sénégalais wala sax képp koo xam ne rek am nga fi nga tënku.